d'accord nañu jeexalee ak li nga xamante ne ni moo di procès bi moom ak mam Mbaye ñoo ñu gis na nag keroog ba ñu ko reporté le 16 bi incha allah la war a wujjiwaat fa li nga xamante ne ni moo di ci tribunal bi euh, yan jafe-jafe wala yan mbir la mën a jur euh, le 16 boobu noonu wax li naan nenub nen du wërub réew bayre bayre ba ci lalu hôpital wërsëg ba ci lalu hôpital des fois nga gis ñu ne waa jàng hôpital bu hôpital ba lay doonee millionaire ñaata jafe-jafe la nga maanaam lu Macky Sall mënulul Sonko Mame Mbaye Niang mënul na ko Sonko sonk du nawleem politiquement du nawleem benn bi ci topp mooy Mame Mbaye nekkoon na fi candidat ci Ndakaaru ñaata position la jël sonk du woon candidat waaye candidat bi mu tegoon. moo gagné. mais diffamation lay wax moom Mame Mbaye. lay wax mais est-ce que du Mame Mbaye daf war a leeral moom suñu alal ba noppi. parce que dak domaine agricole communautaire dañ ko tegoon pour emploi des jeunes mu tudd la ci ci ay milliards mais pour man li waroon a jiitu mhm. qui peut le plus peut le li waroon a jiitu mooy lijjanti Mame Mbaye Niang ak alal jooju moom la wala du moom léegi après ñuy doog a soobu ci leneen mais procès Mame Mbaye Niang man mais moom buy wax dafay wax ak assurance parce que moom ma Mbaye Niang nee na na wax na dikk jàkkaarloog moom la moo tax moom Sonko mënul woon non wax ak assurance mais dama bëggoon muy wax di rassurer xam nga nga wax li nga gëm am na solo mais fexel ba boo waxee ñu gëm la Mame Mbaye Niang dafa am problème pour ñu gëm ko ndaxte nag reeru daaw yi ci la ñu fekkoon maanaam nawetu daaw beeg bu daaw jéeg bi maanaam xaddi senn yëpp xam nañ ko Mame Mbaye c'est-à-dire il doit régler ça hmm. ci kanamu sénégal yi mooy alal jooju anamu ak lan la ci laale hmm. balaa muy dugg ci son Sonko lu tax tey jii li waroon doon loo xam ne waruñ ko son waxtaanee mais ñaari nit ñoo ko seq nan dem ci yoon ñu lijjanti leen diffamation yaa ko wax waxoo ko parce que diggante E IGE ak F est-ce que P xaj na ci di prison hmm. est-ce que beneen P bi xaj na ci di présidence maanaam fu ñu bëgg yóbbu débat boobu mais pour man Mame Mbaye Niang dafa bëgg a def boppam alter ego wu Sonko maanaam léegi doo tuddati Sonko ak yi mais Sonko ak Mame Mbaye Niang des fois ci politique feem yu mel noonu da ciy am léegi nag loolu lépp li ñu yóbbu foofu ba Mame Mbaye sañ lii mooy APR dañoo am problème. problème mu lan. di nga xeexu politique di nga képp ku wóolu sa mbooloo doo xeexee yoon képp ku wóolu sa mbooloo. Hmm. doo xeexee ay takk der képp ku wóolu sa mbooloo doo xeexee administration. Hmm. dama gëm ni ñoom danoo perte terrain politique bi maanaam mobiliser askan wi parce que tey dañuy def ay sondage dañuy waxtaan ak askan dañuy suivre réseaux sociaux yi. tey jii dama lay jox waxuma Mame Mbaye de da ngay def euh, Sonko ak Macky Sall bu Macky génnee ci réseaux sociaux yi wax Sonko wax kan la ñuy gën a suivre yow yaa ngi ci réseaux sociaux yi. <laughs> Oh, laaj ko Sénégalais tey bu doon ay mbër di bëre dama la wax benn affaire. Ah. sponsor yi Sonko la ñuy sponsorisé bu doon am mbër di bëre combat mooy ëpp yeneen combat hmm. parce que day jaay koo xam ne hmm. du sëri ñuy jaay ay photom ci mbedd mi dama lay wax lenn. ñuy jaay ay photom ci mbedd mi. koo xam ne maanaam da ngay day def benn geste ñëpp di ko def. Mm. bu solee dàll sax nit ñi sol dàll bi. bu tëlee bal sax nit ñi xëy dem jëndi bal. maanaam koo xam ne mais mais est-ce que jaadu na ci ku ñu woo ci ci ci ci procès nga war a dem nga xëy génn ñëpp yaakaar ne da ngay dem nga gàddu sa bal doxantu ba mu neex la nga wàññeekuwaat dugg ci sa biir kër bu ñu déggee eh, ses avocats li ñu jot a wax mooy que ni moom jotul woon notification bi nga xamante ni moom moo ko doon permettre ngir mu dem wuyu ji j'espère que le 16 bi tamit est-ce que jàpp nga ni dina dem parce que ni ñu ni ñu waxee ne jotul notification gars yi dinañ jéem a fexewaat ba. xam dafa am sama benn waay doon wax naan. Hmm. ma yomb na waaye rendi ma moo jafe Sonko tër ko yomb na mais rendi ko dafa jafe hmm. ndaxte day mbëri askan wi loolu suñu borom ma koy def bu jugee askan wi jug jarul muy woote li daw xewoon ci parcelle nii rek dëggal na ko loolu tax nguur gi war ko jël au sérieux mais aussi respecté ko ji nga mbiri Adji saar bi muy njëkk ne cët na jonn conférence de presse bu njëkk dama ne dama bëgg Macky saar respecté ma man moo ba léegi dama koy bàyyi xel hmm. pour man danga ko desee respecté mais koo xam ne première élection présidentielle 700000 voix élection bu mu dem même bu bokkul ñiy gagné ci ci barkeem ak dara jàmm la ñuy gagné xoolal campagne bi mu mujj def. Mhm. maanaam nit bii dajale mbooloo bu toll noonu mos naa ko wax sama benn chronique bu nekkee sax ab chef rebelle wala chef de guerre dañ ko war a respecté di waxtaan ak moom parce que am na ñenn ci Sénégal ñoo xam ne tey jii sëriñu diine yi ngay gis ñu naan ay xalif général la la leen nit fonk mbooloo seen mbooloo lan respecté. même boo respecté wul sëriñ bi mais mbooloom ngay bàyyi xel mais nan bàyyi xel Sonko ci nii mbool pour la première fois au Sénégal ci avènement wu Sonko la cohabitation amee assemblée nationale. Mm-hmm. maanaam histoire politique bu Sénégal Sonko da ko lëmbee nekk une réalité politique mais il est temps ñu jël ko au sérieux léegi nag day dem wala du dem loolu ci moom la dépendre parce que bu dul ni yoon rek. day dem yoon moo woote non non loolu yoon wootewul. ah <laughs> non non xam nga ma la yoon wootewul. bu doon moom Mame Mbaye la ñu dem ñu toog ñu wax mais loo xam ne citation directe la diffamation mm. lan la ci yoonu procureur ba tax muy yokk sargi yi di ut lu mu ko daanee mm-hmm. saa à dire procureur la ci yoonam nekkul mais bu doon ñoom ñaar ak ñaar Sonko ragalul Mame Mbaye ragal gu tax mu ne du dem seetu Mame Mbaye Niang mais dafa fekk ni ñoom Mame dafa am lu leen yokk fit mooy mooy dafa dama mës déglu benn colonel. Mm. ci benn émission damay bañ a ci tur bi moo tax ma yem ci colonel bi mu ne Sénégal da cee tiit mu ne ñett moo tax mu tiit ci mu ne bi ci njëkk mooy justice bi mu ne justice bi bu doon ni rek dañuy def seen liggéey yoon moom du tiit mais justice bi bu demee bay def ay actes yoo xam ne da ngay sentir ni politique la. am na problème te pro da ngay xool projet yi fi mujj a jaar bi di aji saar yooyu politique da ciy dugg de trop mais bu doon yoonu kase yow sa yoon du ci ne sama yoon du ci ne yoonu sandiogu du ci ne yow sa yoon du ci ne par dan naan yaa tooñ demal ci yoon mu lijjanti ko ñu atte ko atte bi war mais yi fi xew ci réew mi yëpp jarul jaaraat mais da ngay xam ne des fois yenn décisions yi ak yenn nit ñi ñu jàpp ci kaso bi sax politique da koy lal comme sànq li nga wax euh, ci Diourbel Mbàkke mhm. ak yeneen yoo xam ne te ay arrestation yoo xam ne des fois da ngay gis sax ñu jàpp nit na ko retour de parquet maanaam wa dalay jàpp ba indi procureur li ñu toog mais du xam lan la lay chargé. Hmm. maanaam dalay jàpp ba pare di wër lan la la war a taxal. Hmm. fo même foofu rek mu wax loolu. Hmm. beneen bu sopp mu ne administration mu ne administration te administration Sénégal politique dugg na ci pour la première fois au Sénégal ñi dem élection ñu ne direction des élections mooy élection locale yi. moom mooy bàyyi liste bi mu jàll ak législative moom mooy bàyyi du du dem xoolal liste Yewwi Askan ba tax ñoom Sonko yëpp ñu député demuñu élection député yooyu yëpp administration bi dugal ci loxoom dem ba mbiri lëj mm-hmm. maanaam ku lijjanti yaa ngi lijjal dem ba mbiri lëj beneen bi ci topp mm. boo xam ne moo tiital col moo tiital colonel bi mm-hmm. te tiital ma man mooy takk der yi maanaam man musuma gëm ci Sénégal ne ab takk der dina dugg ci politique wala muy def ay acte politique mais yenn saa yenn rassemblement yi am mais yenn kii yi am arrestation yi mais bu dee ni rek ordre wala yoon mun naa gëm du demee noonu wala bu la wooyee ba nga yegg si bu la dégloo xamoo defa dara ñu bàyyi la mais fii tey jii leen naan règle bi moo doon euh, ñu bàyyi la nga dem mais exception moo doon ñu téye la mais tey jii ku fi woo tey jii da nga jàpp ni dañ koy téye day dem ci kanam procureur jàll ci juge bi dañ koy jàllale yenn saa ñu yóbbu instruction ku demul bu demee ba takk deru karange gi yenn saa yi ñu def ak yoo xam ne yow dañ koy méngaleeg politique te ñoom dañoo waroon a maandu parce que ñoom war ñu xàmmee Macky Sall war ñu xàmmee Sonko parce que ëllëg Macky dafiy jugee Sonko mun na toog kon ñoom danoo waroon rek sàmm suñu karange di ñu ko sàmmal ak suñu moomeel parce que ñoom dana leen karange ak askan wi ak seen moomeel yeneen leen ko war a sàmmal ñu ne yoon da nga war a tëddee ndey ji seex doon jaaxaan na ñu ne administration bi yéen da ngeen war a def seen liggéey rek ngir yem ci mhm. di nga toog may ma di nga ah. procureur dama la li may wax ne dafa am sens procureur mu ne lu ko tiiral Sénégal rek loolu la mooy mm. ñett waroon ne xam nga policiers yi mën def seen yëfi dof na Sonko def lu ko neex Macky mën na def mm-hmm. mais li ko tiital mooy mm-hmm. nee na bu justice nërmeeloo inchallah administration nërmeelu takku deru kaaraange gi nërmeelu mu ne amatuñu réew c'est-à-dire bu ñu amatul état nag dañuy nekk ci anarchie